lëkkale nag li nga xam ne moo xew fi mu toll nii ci àdduna yàq ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. dëgg la Cheikh Ibrahima kay. dëgg la. damay wax ni. faj rab wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko door nee ñu koy def pour wér. wante moom da lay xool wér. mbokk yi boroom xam-xam bu mag bi kat ñëw na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xam ni mooy sëtu Soundiata Keita xam-xamam màcc mu donn ko ci ay maamam ñëw na Ndakaaru te ma nga ca deux voies liberté si rond point Pentola ginnaaw boo weesoo camp naan li muy faj bare na ku ami da koy faj képp koo xam dañ laa liggéey demal ca moom ku bëgg bayre moo xam nga bëgg a siiw demal ca moom képp kuy wut ay këyit mu jafale ci wàllu tukki mën na ko lii nga xam ne moo di ku tële di góor ci wàllu sëy man na ko jigéen joo xamee dooma la të man na ko góor goo xamante ni da bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkër kii di Serigne Cheikh Ibrahima Keita moo ci gaaw mbokk yi dama ni képp koo xamante ni place ba nga ne da yaakaar ni dañ la faa bëgg a jëlee dawal gaar nga seeti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di di tradipraticien bu mag doon ko ci ay maamam Soundiata Keita roi du Mandeng mbokk yi numéro téléphone bi 77 664 92 92 76 136 78 30 70 750 18 84 borom xam-xam baa ngi noonu di Cheikh Ibrahima Keita loo fa indi bu neexee yàlla mu faj ko. salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokki internet CIK TV Sénégal ñu ngi leen di dalal dinañ jox kenn ku si nekk sa wàccuwaay di leen wax ne nii lay demee saa su ne si CIK TV Sénégal muy seet bu mag bi nga xamante ne nii foofu ngay am le plus grand marabout le marabout de tous les marabouts le roi d'Afrique le roi Mandeng le Ninki Nanka de Soundiata Keita l'intouchable ki nga xamante ne nii mooy docteur El Hadji Cheikh Ibrahima Keita le petit-fils de Soundiata Keita ki nga xam ne daa def preuve ba àdduna wërngal këpp teg ci beut bët. Mm. don donduwul mam ja da don mam ja si xam-xam ja si meun meun ja ak si faj le marabout du peuple kon donc docteur El Hadji Cheikh ibrahim Keita ñu bàyyi la nuyu askan bi alaykum wa alhamdullilah rabbil alamin sant yalla bu baax Mamour maa ngi lay nuyu yow Seydi di len siyaar bu baax sant yalla bu baax baax di julli ci yenen debi di gërëm suñu suñu jotta kayta mi nga xamanteni ni mo ñu yebal fi ci diwanu Zag Mbaaw toogloo ñu fi pour ñu jàppale jaamu yàlla yi ci liggéey bi gis ngeen xama da ngeen ma forcé sax chef bi kaay ñu am benn interview xaw ma lan ngeen bëgg a laaj nag waaye patients yi ñu ci biir nañ fexee tënk-tënkee rek su ko defee ñu mën a ñu mën a continuer liggéey bi Mamor. waaw sëñ bi. Mhm. gis nañ ni patients yi bëri na bi ñu dugg si sax. xaw na ni yéemu foofu noonu. Mhm. ñun. Mhm. ñu si yow sëñ bi. dëgg la lenn rek moo ñu yéem si yow. Ah. muy sëñ bi patients yi ni ñu bëree si kër ni nit ñi nit ñi nit ñi di nga leen di faj faj bu jéggi dayoo bu gaaw. Hmm. dañuy gis ay nit di faj. ñii di bëriyee. Hmm. ñii di faj ñàkk tooy xib. mais sëñ bi hmm. ñun dañ bëggoon xam lan mooy sa secret yow si faj mi. ba nga xamante ni yow boo boo bu la neexee sax mën nga mën nga ah. di faj nit. alhamdulilah Maam Mor sant yàlla sant yàlla bu baax. mooy li ma la wax rek xam-xam bi bu newee ci yow du jar nga sonn du jar ngay përee ginnaaw ak di daanu yéeseeg yooyu jaru ko parce que lay faj xam-xam la dafa nekk loo xamante ne ni maanaam bu nekkee ci yow rek maanaam la takk ci yow sax boo bëggee mu wér day wér moo tax bu ñuy faj duñ ci sonn duñ ci duñ ci duñ ci yëngatu duñ ci def yenn nécessaire yoo xamante ne jaru ko ndax xam-xam bay faje bu newee ci yow rek yàlla da lay dimbali. jumtuwaay yi yëpp dalay jege te faj nekkul nekkul loo xamante ni doole la gis ngeen ñi fi jógee léegi léegi alhamdulilahi rabbil alamin xam-xam daal moo nekk loo xamante ne ni mooy li wóor boo ko amee doo sonn patient du yàgg sa kër gis ngeen bu ñu xëyee niñ fiy feesee balaa une heure deux heures ma liquide leen ñu ci bëri dem seen yoon sant yàlla rek secret bi daal mooy xam-xam pur moo fi ne waaw sëñ bi li nga wax dégg nañ ko mm-hmm. mais boo xoolee ba si biir li ñu li ñu jaaxal mooy est-ce que si biir amul ñu lay jàppale. dëgg la parce que ñun gis nañ ba ñëwee yow rek lañ fi fekk. dëgg wax dëgg. Uh-huh. si waxtaan la bokk. dëgg la yow doomu lañ fi fekk. yaay faj. nit ñi di wér. témoignage yi gis nañ ko. kon sëñ bi liggéey bi dañ bëggoon nga wax ñu tuuti rek. Uh-huh. comme que temps bi bëriwul. waaw ba xam mm. doo si dajeeg patient ya nga xamante ne nii. dëgg la seen i dina la sonal non non loolu mënul nekk parce que yaakaar naa euh, Cheikh Ibrahima Keita buñ ko waxee ne petit fils de Soundiata Keita man aw ma benn soutien ci faj bi kenn du ma jàppale man unique maay faj patient ak man mënti ñëwee ah, même bu dee day daanu day yor ay rab di dóore bu ñëwee dañ koy ubbil bunt bi mu dugg buñ ko tiimee rek liñ bëgg ci moom mu antu kooku amul problème kenn du ma dimbali ci sama faj man maay faj ci ci ci ci ci ci nu mu gën a oyofee euh, te yàlla euh, te parce que affaire bi nekkul nekkul nekkul doole xam nga mbir mi nag moo leen jaaxal xëy na ay gan ngeen ci kër gi moo tax mbir mi jaaxal leen mais faj bi nekkul loo xamante ne ni ngeen di gisee ni ñu fi bëree ak ni ñuy sonnee noonu lay yombee ci man ndax mbir mi dama ko doon doon sëtu Sunjata Kayta doon xalifaam doon koo xamante ne ni yàlla da koo taamu jox ko xam-xam bu muy fajee moo tax daal ci kàttanu yàlla ak mbir mi daal yomb ma daal. ok daal euh, feebaroon naa feebar bu métti te mu yàgg lool lool lool lool. parce feebar bi euh, depuis 2008 ba léegi. Uh-huh. depuis 2008 ba 2019. 11 ans. 11 ans ferme may feebar. Uh-huh. feebar feebar naa ba yaram bi jeex tàkk. Uh-huh. dem hôpital. Hmm. amul analyse bu ma deful. Hmm? amul rajo def naa ay rajo ay analyse ay lu neex def naa ko. est-ce que ba mhm. ma dem si traditionnel bi. Uh-huh. wëndeelu Casamance yëpp ba mu jeex. toj naa fa Casamance moom. dellu fan ba si hôpital yi. toj Gambie tamit taxul ma am tane. allahu akbar jublu si traditionnel tamit Gambie. ba mhm. sonn. Mhm. man mi ma euh, décidé ma ne damay ñibbisiwaat. si YouTube laa ko gisee. ma gisee si YouTube bi. ma ne xaaral dama koy insister bu ko woo amu fit boobu ma ma ne après ma insister ma ne te maa woo ko de ma ne ko de li ci gën a dee sax boîte vocale laa ko envoyé mu mu tontu ma. ndeysaan waaw ma ko kon de kii mu xaama woo ko. wallaahi wallaahi ko euh, mm. ma la allah waaw nga ñëw rek. ndeysaan fii nii incha allah ma ne ko incha allah dinaa ko yow yow bi ngay ñëw ci Cheikh Ibrahima Keita est-ce que amoon nga yaakaar wër ci sa yaram gannaaw ba jàng fu bëri. ndax man daal. Mm-hmm. am naa ci yaakaar parce que ci lu muy wax baatam yu muy wax si YouTube bi. yu rafet la Sénégal yi ñëpp a ko respecté. parce que boo ko tiimee nii lu muy wax si si YouTube bi. Mm-hmm. boo ko gisee di nga xam ne moom ku am valeur la. ku a respect. ndeysaan te ñëpp ko respect. dëgg la waaw. bi ma dugg see sax ba ma ñëwee mm-hmm. fii ba ma duggee si néegam ma ne ko boo ma fajoo sa weer naa. allah <laughs> bi ma ñëwee mu ne ma il y a deux choses. Mhm. ne ma am nga rab. Mhm. ak nitu di ñoo la topp. ndeysaan man exactement ça. parce que rab bi si boppam am naa ko. Mm-hmm. ay nit guddi yu muy wax nii. Mm-hmm. ndax kuy tëdd na di jënd ay ay ay njugub ay lu ne. ndeysaan ah loolu lu mu doon. waaw ñoom la de damuy la xam ne Cheikh dama da da dangay même même boo nekkul sax ku amul boo amul nu mu tudd sax boo amul xam-xam. Mm-hmm. yàlla sa parfa dalee woon nii. ñu ngi lay topp. dañ lay dañ lay euh, signaler tuuti sax at least. man premier jour bi ma ñëwee fii nii. ba ma sàngoo garab ba may génn kër gi di dox njëlaw njëlaw bu oyof moo doon. tey daaw bi yaram bi. man ko lii moom jeex na. gis nga bi ma eggee kër ga. lendemain bi si suba si. damaa ndékki te man su ma xëyee su ma gisee ndékki bi day mel ni ku am pali. da damay tayal ndékki du ma ndékki. parce que day day mel ni ku ñu forcé mu ndékki. waaye ndékki naa ba suur ma ne ko xanaa lii. at least sax xanaa daa génnee benn yoon feebar. <laughs> kon kii nee na ñetti fan waaye xanaa génne na ko. wallaahi wallaahi su yemoon xëy mu neex sax. jamono yooyu sonnoon naa trop dama sonnoon euh, yéen woon métit boo xam ne presque plus de sept ans mm-hmm. maa yéen métit bi. mu nekk loo xam ne ni lu méttee métti. Mm-hmm. daf may tere nelaw. Mm-hmm. daf may tere parfois def sport. parce que man dama bëgg sport su may def sport su ma yaram bi day métti. parfois nelaw bis damay nelaw di rêve ay rêve yi doy war waaw par ba noppi suma wori jog matinal bi ni pour xey problème gandum problème la am pour jog waaw loolu mo nekkon suma suma ginaaw gi dafa don tang mel ni gaz buñ ci tek oh. di parce que waaw day tang jeur baat bi aussi parfois pour tourner côté droite bi ni sumay waji tourner damay am problème waaw waaw man kay dem na fu bare bare mo dem naa fépp da ngay dem ñu naan la noo lii dinaa ko faj da ngay génnee lii nga génnee ay sarax di def lii da ngay sonn da ngay génnee sa sarax mhm. di génnee sa xaalis doo gis résultat mhm. waaw finalement yow da ngay dem sax da nga naan mais est-ce que lii am na ku ko mën a faj mhm. parce que da ngay dem ba jaaxle doo xam sa fooy dem da gis sëriñ ñu naan la kii dafa mën na lu muy def mais da dul dem parce que da nga naan kii du am résultat résultat du am parce que man résultat moo ma ah. waaw quel que soit dem na fune farfa da ngay dem fenn day don lu temporaire pas du définitif waaw da ngay gis day ko à 10% a mhm. à 15% mhm. nga tok un mois mhm. li li fa nekkon moy ñëwaat donc da ngay nekk ci njaxare bo xamné ni mëno ko netali kenn parce que li lima dal ni bu la dalul mëno ko gëm bu la dalul munoo ko gëm da xëy problème digg sax amoon naa ko ah. parce que demoon naa benn moment jaaxle woon naa trop mhm. jaaxle woon naa trop nelaw moom daanu ma nelaw mhm. premier jour bi laa commencé affaire yi ñu ma jox parce que man moom dama demoon ba sonn boo ma joxee ay mbir du ma xaar ay vingt quatre heures mhm. ay quarante huit heures sur le champ laay def lu may def bi ma demee ba def affaire yi mooy yónnee ko vocal. moom mii yónnee naa ko vocal. Mm. ne ko jour boobu maa ngi yow quatre heures du matin. Mm. ci jour bi. waaw mm. ci jour bi ngeen baal ma. ci jour bi bi mu sangoo affaire yi. ci jour bi la gis résultat mu yónnee ma vocal moom tamit ku baax la. mu yónnee ko vocal di ko gërëm. kontaan damay toog. di jàng alxuraan léegi lay toog di gën a mën a def su may zikri. dëgg la waaw. waaw sëñ bi dëgg na li nga wax mais sëñ bi ñun. lenn rek la la bëggoon le mhm. nga mën a yeggali liggéey bi parce que patient yi taxaw di temps bi. mais ñi ngi rek. internet yi ñoo muy yi. Mhm. dem di wër fu di faju faju bay a fay seen bay a duñ satisfaction bi mhm. dans trois jours jours. nga ñu réaction ñu ak liñ dox bay bëgg a dee yooyu noonu yëpp. Mhm. yow ban réaction la ñuy am envers toi. non dañuy kontaan vraiment vraiment vraiment sant bu ne nañ ma sant da nga gis ñoo xamante ne dañ naan ma cheikh bi dinaa la tuddee doom <laughs> cheikh bi cheikh bi a ma gënal lu ma am ci kaw suuf parce que imagine toi nit feebar fukki at dix nit feebar ko wër ci sëriñ dem fu ne. billaay ñu lekk xaalisam. Hmm. yéeg am na ñoo xamante ne leen di yéegloo garab kaw garab ñu ci sangu garab. ci ay guy ñu ne leen sangu leen ci garab lu ne ñu def ko fu ne ñu jaar fa dem ci ay armeer di sangu lu ne ñu daj ko pour wér ñu ñëw fii ci ñetti fan te man duma leen def yooyu. Euh, sëñ bi est-ce que si jinne yi ñoo lay ñoo lay jàppale. waaw jinne yi nag ñooy suma lépp ndax man mbiru jinne laa yor moom laay fajee surtout Soundiata Keita la moom lañ ma xamee ñoom ñooy suma doole sant yàlla bu baax a baax satisfaction totale lañ ci am. danañ bëgg danañ kontaan. waaw loolu daal patients yi daal seen xol a ngi sedd. waaw mbokk yi bu ko defee tey di la leen indi loolu. si si seen émission bi nga xamante ni nii. Mm-hmm. tey mm-hmm. suñu invité d'honneur mm-hmm. sëñ Cheikh Ibrahima Keita la nekkoon tey di leen jox beneen di daje. bi nga xamante ni nii dañuy waxtaan yeneen yeneen i questions yoo xamante ni yéen internautes yi yéen ñiy commentaire yéen ñuy jox question yooyu noonu bu ko defee ñun. Nous nous, nous, nous, nous, nous, lañuy question nous, nous nous nous docteur ki nous nous, ni nous, nous guérisseur nous, nga qui nous, nous, nous, nous, nga nous, Nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bu nous, nous, nous, nous, ni Afrique monde entier nous, reconnaître nous, nous, nous, nous, nous, góor gi tële nag li nga xam ne moo xew fi mu ci àdduna yàq ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. dëgg la Cheikh Ibrahima Kay. dëgg la. damay wax ni. faj rab wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko door ñu ñu ko def pour wér. dëgg la wante moom da nga wér.